jamono yi ñu toll fii ci Sénégal utum këyit doon mbir mu jafe-jafe rawatina loolu ñuy wax passeport looloo waral tey seen chaîne d'investigation bu Kéwoulo TV demaloon leen fee nga xamante ne fa la ñuy utee loolee di passeport ca naka noonee ba ñu egsee ci bërëb bile ne meeku nañ fa mbooloo mu takkoo takku di toog di xaarandi li nga xamante ne moo di seeni këyit ca noonee gis nañu fa ay ndaw yoo xamante ne ñoo ngi lee rang ngir rek jot li nga xamante ne moo di seen ay kayit waa jiile toog di xaar boobu ba léegi moom nag amal nañu ak moom ay laaj mu ngi xamal rek ni Sénégal la fi ñu toll nii am nañu ay jafe-jafe bu baax a baax ngir rek jotandi li nga xamante ne moo di seen passeport. ah li ko waral de mooy ñi wut passeport bëri na. te fii boo fi ñëwee moom day mel ni bon mooy loolu boo fi amul koo xam da ngay sonn ci passeport kese man nu instant nii renvoyé nañ ma presque bii mooy deuxième fois le premier bi passé le premier laa ko sàkk woon ñu jox ma rendez-vous ma ñëw ñu renvoyé waat ma waaw mais tey jii nag yaakaar naa naa ci jot waaw tey tey daal laa ci yaakaar dañ ma joxaatoon rendez-vous tey 13 heures waaw des na moom moo tax ma toog fii nii. non daf amel na ma ay retard kañ amel na ma ay retard yoo xamante ne xëy na bon ay retard yoo xamante ne tey jii nii am na ci lu may jotoon yaakaar mais donte jotuma passeport bi dafa compliqué passeport bi daal tardel na moom quoi am na ci lu ma tardel. comme ko ñoom affaire yi moom dafa waroon gaaw wax dëgg si yàlla passeport yaakaar naa ne da ko doon déposer même pas. jour le jour jour le jour nga jot ci mais comme léegi dangay ngay déposer passeport di di toog ay presque ay un mois ay ay ay deux semaines doo ci jot wax dëgg si àlla métti na trop. kàddu yi ñuy joxe mooy euh, kayit yi xamante ne nii mu di carte d'identité bi mu di passeport bi dafa war a mën a gaaw parce que population bi dañ ko soxla parce que noo yónni yàkkamti ñu kon te ndefalu waruñu ndaw ñi sonn nañu. yàkkamti wu ñu de dañoo sonn parce que ki war a am lu mu dunde te amuloo loo lu ñu ne la ne lii la da ngay naan ne loolu la te loolu mën naa ñàkk parce que sunu réew mi ci wàllu boppam dox na aussi am na xéwal kon xéwal gi war nañ ko mën a exploiter doomu réew mi jariñoo ko ba du ñu am leen lu ñuy dem di jéggaani retard bi retard bi am ci liggéey bi loolu lépp manque d'organisement la moom moo waral loolu mais suñu organiser woon kon loolu mën naa ñàkk parce que bu fekkee ne groupe bu ñëw ñu jox la li xamante ni mooy sa yelleef ci dëkk bi dara du tardé mais buñ la joxul sa yelleef nag dana tardé parce que dëkk bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ku am ndey nag jàll nga mais ku amul ndey ku nekk da ngay xaar. kàddu yi may tëjee mooy lu ñu mën a dimbalee pour mu gaaw ba ndaw ñu toog ci dëkk bi lépp lu ñuy lijjanti fii mu gaaw ba ndaw ñu mën a toog ci dëkk bi. mais fi mu toll nii tàyyi nañu sonn. ginnaaw loolu beneen waay moom nag di xamal rek ci xar kanamam mer na. sonn na ginnaaw ba mu toogee di xaar boobu ba léegi. moom nag euh, mu ngi wéy di ñu xamal rek. depuis le premier mu ngi jaabante fii nga xamante ne la ñuy utee passeport ba léegi amatwul li ko neex. Euh, atu ko xanaa métti rek ak sonn rek Sénégal moom mooy dëkk boo xam ne moom euh, boo lijjanti kayit da ngay sonn muy maire yi muy fépp foo xam te loolu waroon naa mën a ñàkk. ñun moom li war a nekk loo xamante ne lu war a mën a yomb ci ñun la ñu yombaloo ñu lépp mais Sénégal émergent boo xamante ne lépp loo lijjanti da ngay sonn da ngay yow très bonne heure rang quittance rang lépp vraiment ci lijjanti ay passeport ak ay kayit waroon na mën a ñàkk daal waroon nañ mën a dimbali ñun ni yombal leen du bëri daal. tatan waaw boo doo liggéey journée bi da koy perte mën nga amaat beneen journée boo xam mën nga fi ñëwaat ça dépend yàlla xam ok waaw loolu sunu njiit yi rek ñoo ci war a taxaw ñi nga xamante ne ñu gën a góorgóorlu ñu ngi def ay effort sax xamaa ne mais ñu gën a mën a góorgóorlu boo bëggee tukki sonn boo bëggee dem si banque yi leen ci sa xaalis sonn te yaa liggéey yaa moom boo nit waree amel bor sonn parce que dëkk bi moo moo doxul ñu ni ñi bor duñu la fay parce que bañuñu mais dañoo amut moo booxul loolu la depuis huit heures demi maa ngi yàgg nañ ci trop donc ñu sañoon ñu jàppale ñu ni daal mbir yi gën a yomb ñoo ko gisandoo mbokku internet yu Kéwoulo TV lii rek lañ leen demal nemmee kuréel woon fële nga xamante ne mooy fa ñuy utee yele passeport mu doon jamono yile ay jafe-jafe yu metti yi nga xamante ne askanu senegal ñu ngi koy jànkonteel ngir rek mën a am seen ay kayit jox leen dig daje ci yeneeni enquête ci seen chaîne d'investigation bu Kéwoulo TV